moo di paix sociale par rapport ak li nga xamante ne moom mooy affaire Bah Diakhaté bi est-ce que nekkul lu yee ñi ne di alliés yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kujje gi. alliés alliés yan <laughs> alliés yi. non dama juum les opposants je veux pas les alliés moom mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd ak gouvernement bi. opposants yi de ko ciy wax. les opposants oui les opposants moom. Mhm. Euh, gisuma ko. Mhm. pour le moment. J'ai pas vu les opposants. <laughs> une opposition. Une opposition incarnée par la paix. mais j'ai pas waaw j'ai dégg moo tax ma ne la. Mhm. soo ne les opposants déggu ma leen. Mhm. ba fu ñu toll nii déggoo laa des fois maa ngi la naan. bennoo dañu ne gagner ensemble gouverner ensemble. mais ba léegi defaguñu mémorandum wala rencontre wala congrès pour wax ni. on perd on perd ensemble, on se pose ensemble. on se pose ensemble. voilà xamaguñu. maintenant le communiqué. voilà euh, s'adresse directement. à ñi nga xamante ne c'est le de l'APR. c'est le communiqué de l'APR te boobu léegi waa APR ñuy jóg pour jàppale Bah Diakhaté. qui un de leurs militants. Mhm. un de leurs militants. parce que tamit euh, foofu la ñu xamee bañ nañ ko ba ñoom. nee solidarité militante waaw dañu ne activiste républicain <laughs> la ñu wax donc ça veut dire euh, que si ñoom la bokk. l'un dans l'autre comme je t'ai dit ku mu neex am. ku mu neex faral ku la neex. Mhm. ku mu neex jàppale ku la neex. je en encore une fois lépp rek nañ ko tënk sur des principes républicains et démocrates euh, si doxalin si jëfin si waxin. wax naa la que ni jàpp nañu fi euh, dernièrement lu lu gàtt ay plus de mille cinq cent jeunes ku nekk pour des motifs différents ñii si manifestation ñii si leneen ñii si leneen ku nekk selon des motifs différents ñu bari jàpp nañ leen plusieurs mois ñu jékki saay bàyyi la ñu ñibbi je crois bien que. pour un cas pareil on ne peut aujourd'hui on ne peut pas anticiper pour dire dérive liberticide wala loo xam dafay remettre en cause la paix sociale parce que xam na ko un parce que au delà de de au delà de kii ki ñu jàpp te li tax ñu jàpp ko je rappelle que. mais ci ci ci paix sociale boobu tout toutes mes excuses rek ci paix sociale boobu est ce que amul lu muy wund ci suuf euh, ci diggante lu tax ñu tudd le mot paix sociale est ce que euh, ca lañ doon wax jëm ci wàllu dialogue bi est ce que amul woon lu dox seen diggante euh, ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy le président d' abord je cite Macky Sall ak ki nga xamante ne moom moo di le président Ousmane Sonko de Pastef. waaw ah, mais le président Macky Sall il reste le président de l'APR non. Mhm, bien sûr si boppam. te ñoom ñu dëggal ko ba tey jii ñoom ñi ngi dëggal ni mooy seen mooy seen chefu parti. Mhm. bu fekkee dafa am lu dox seen diggante te ñoom ñu koy ŋañ ŋañña. Mhm. donc ñoom nañu jël seen responsabilité bopp. Euh, euh, tiñal ko moom Macky Sall. wax ni moom moo dox moom am na loo dox si dox si diggante ak Ousmane Sonko. tout ce que l'on sait ñu on est à l'étape des supputations ba léegi nous sommes à l'étape des supputations. bu fekkee ni ñoom dañoo nangu mu nekk seen seen njiit ba tey. kon mbokk ñoom dañoo ànd si lépp li nga xam ne doxalee na ko bu dee dañu ne dafa rencontre dañoo dil da ko doxalee et je rappelle que Aba Mbuub ah, mooy sàmm jikko yi c'est lui non. oui ah Mbuub si wàllu boppam il a porté plainte devant le procureur de la République contre Bah Diakhaté donc euh, am na beneen plainte bu ñëw tegu ci kawam au delà de li procureur autosaisir ak li ko tegee loxoom comme j'ai dit une fois duñu naan dañuy exprimer opinion. une expression l'expression d'une opinion du ñëw jël li gën a bon nga tuumal ko nit encore une fois loolu c'est ce n'est pas exprimer une opinion c'est attaquer la personne directement tey jii nii boo doon ngay jigéen di yaay ngay jigéen di yaay ku defoon vidéo am fu la dëkkal yaa ngi gis nga gis sa bopp ak lu munti munti demee nañuy nañuy bañ di def la promotion si li nga xam ne mooy euh, effectivement saaga wu ñu ko waxee xam nga yàgg naa la wax que ni fii sur le même plateau que ni tous les insulteurs son à mettre dans le même sac quel que soit ki mu faral quel que soit ki mu àndal te du dugguleeg ñu wax ko fii si plateau bi moo xam ne nekk biti réew di saaga ñoo xam ne nekk biir réew di saaga tous ils doivent être mis dans le même sac amul loo koo xam ne danga ko daan bravo ku ko ne bravo nag da nga àndi si saaga googu parce que comme ni ñu koy waxee rek li lii gën a élémentaire si si presse par exemple bu ñu la koy wax boo bindee article loo ci wax lu ñaaw bàyyi jàmbur dinga fa rek nga def sa tur bàyyi nga xool lu mu lay jox defe naa ni loolu il faut tamit ñu si bàyyi xel maintenant Bah Diakhaté pour Bah Diakhaté euh, wala Doudou Ndiaye pour Doudou Ndiaye euh, sëriñ mi ngi nii il may témoin léegi laa koy laaj kan mooy Azura mu hmm. <laughs> wax ma kan mooy Azura ma ne ko lan la def mu déema mu ne dafa saaga président. moo insulté le président de la république. je te dis parce que man sa wàllu bopp comme nu ngeen xëy na ñeneen ñi ñu nekkee ci réseaux sociaux yi ci TikTok beeg yooyu di topp ñeneen ñi c'est pas mon Trump ñu xaw waxuma nag niñ koy def wax waruñ ko def de ku nekk ak la la ak lala la la la intéressé les les goûts et les couleurs ne se discutent pas Trump mais loolu noonu bu ñu ma ko waxee léegi nii si laa koy doog a xam mais mais c'est à dénoncer avec véhémence te ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ko ni ñuy ñaawloo euh, wax ji mais noonu la ñuy war a ñaawloo saaga boobu te li si war a def tamit bu dee yoon am na si lu mu si war a da si war da da see war a def comme comme ni ko sëriñ waxee léegi parce que bu mu ko waxee laay ko bu mu paree laa koy laaj kooku mooy kan. encore mm-hmm. une fois Bah Diakhaté bi man tamit c'est récemment maa ngi koy wax fi la dernier plateau le dernier plateau du mardi mais récemment laa koy doog a xam récemment pour te dire donc l'un dans l'autre je dis. Euh, euh, euh, fii on ne va pas ré réinventer la roue Fatima. Mm, mm. APR moom mun na ko jël mun na ko jël comme véritablement la ba mun na ko jël mun na jël la balle au rebond ne une une occasion se présente c'est le moment pour nous am nu ñu. nu ñu taxawaatee nu ñu remobiliser wu waatee. ils sont dans le bon droit dontele. motif bi du loo xam ne lu ñuy rafetlu la encore une fois. Mhm. foo dem feneen tamit du loo xam ne dañ koy rafetlu foo dem war ko fa plaider tam du loo xam ne ña ngay dem daañu la may nopp pour véritablement war a mën ko rafetal wax jooju kenn mënu ko rafetal impossible. maintenant euh, affaire bu ñu taxawee ñoom seen wàll bopp ñoom ñoo war a xam lan la ñuy teg comme argument pour véritablement se remobiliser xëy na dañuy jël la balle au rebond pour véritablement se redonner une santé politique tout au terme de sa durée légale l'assemblée pour être dissoute d'ici septembre 2024 te instant bi nii waruñu mën a nekk en léthargie parce que tamit su boobaa defe naa dégringolade bi dafay gën a dafay gën a dafay gën a yaatu. mu nar a nekk lu jafe. également ci dissolution wu assemblée nationale. bu dafay dafay voilà dafay nekk lu jafe. Mhm. maintenant comme je l'ai dit man yàgg naa toog fii wax ko APR. y a des jeunes des hommes des femmes de valeur yàgg naa ko fi wax ça fait si ça au moins huit ans ma koy ma koy répété. ñoo xam ne dañoo gëm seen réew bëgg seen réew la preuve. la des fois maa ngi koy wax ma ne am ñu liggéey ak Macky c' est pas parce que dañoo liggéey ak Macky que dañoo bon déedéet te tey ku seet si ñoom doo leen fekk dara la preuve Khafor Abdou Khafor Touré il était directeur général de Ségis. Hmm. maa ngi ko gis mu def un poste pour dire que conseil d' administration digg na ko de son poste de directeur général mais l'a maintenu comme la société dañuy njort ni dafa def résultat yu baax. ba ñu ko fay ba ñu maintenir ko fa. <laughs> je sais pas trop non non jusqu'à la ba léegi. sur am na jaar na compétence fi ma jot li information laa yem. si si gisuguma rapport laa wax. Mm-hmm. gisuma dara lu ko épinglé ko épinglé ko mi ngi xaarandi leneen luy génn. Mais je dis encore une fois, peut-être qu'il y a d'autres occupants également qui occupent d'autres postes de responsabilité. Liggéey ak Macky Sall te Macky Sall woon leen. Mhm. te tey jii nii on n'aura rien à leur reprocher. Mhm. donc du mënoo ne lépp bon ce n'est pas possible. forcément am na lu baax am na ñu baax am na ñu jubal jub jubanti ci loolu leen si fekk si. te boo ñëwee seet seet seetlu ko daa ko fekk si ñoom. donc loolu kenn mënu ko dingi am ah, moo tax ma ne la. Mhm. on ne peut pas toujours que fii nii léppay bon. Mhm. noonu fii léppay baax. ala kulli àll selon les positions. da nga moo tax toujours euh, souvent dañu la naan non non équilibrisme ou non non souvent relativisme et cetera et cetera non je dis encore une fois dama ne l'absolu l'absolu l'absolu l'art dans toute approche c'est parce qu'elle est dogmatique. Mhm. merci beaucoup Abdoulaye c'est important je dis l'approche l'absolu dans toute approche c'est parce qu'elle est dogmatique. tout texte est nuisible. voilà mu ngoog. loolu mooy loolu mooy dëgg ji donc mënuñu ne lépp li fii wala lépp fële la mais dans tous les cas. gis mhm. nga cër dafa baax si doomu aadama. Mhm. ñun nous ne pouvons pas ñuy toujours di def si plateau feneen si bind si rajo yi di wax promotion des valeurs parce que anti valeurs yi ñu sos ba pare ñu ñu bëgg di continuer di def la promotion des anti valeurs ce n'est pas possible. très sa doom bu toogee sa kër ne waa kii yaay kii mooy kan nga ne ko kii de ah moom day wax si si chaîne mu ne la la la wax. mu ne dafa jiiñ ñu ne dafa jiiñ baayu diw ak jëkkër diw ak ak nijaay diw lii sa doom na la loolu mooy lan nga expliqué ko mooy lan mu tëb mu mu boo moytu mu mu tëj gémmiñam même donte la xale la. très bien moo une fois. Mhm. dama ne opposé wul. Mhm. songal nit ki. opposition dafa war a am songal nit ki. Mhm. si jëfinam. si waxinam si xalaatam si ay ay. ay démarches mm. ay choix am mais encore une fois nu ñu moytu comme nu ñu koy gisee jamono ji et ça commencé wu léegi mm-hmm. boobu ba léegi mm-hmm. di songu nit individuellement mm-hmm. pour pour détruire nit bi Fatima combien de fois on a brisé des carrières volontairement si wax ju bon combien de fois on a disloqué des familles si wax ju bon mm-hmm. ñaata nit nga gis ñoo dëkk si benn koñ juddoo fa màggee fa dem ba xatatuñu si koñ ba ndax dañoo jiiñ kenn si ñoom lu dul dëgg ñu obligé buub seen bagage tuxu mm-hmm. mais léegi ñun on ne mesure pas les conséquences de ces actes là léegi on veut dire non non c'est un héros ah ok au Sénégal un insulteur est un héros malheureusement non je dis encore une fois il faut que ñun ñu wax ni mm-hmm. gis nga nit ki non xëy na juum la comme ni ma ko waxee sànq dama la cité exemple suñu confrère ma ne la Bachir Fofana ba ñu général Tine. dafa wax joo xam ne dafa juum mais par grandeur automatiquement dès qu'il a senti que dafa def erreur da wax ñëpp dégg ko. mu bindaat ko mu leer nañ damaa juum jégalu naa donte la am na ay turu réfère yu ko song. nit bu juumee. Mhm. Fatima mhm. nit bu juumee day nangu juum na. très bien et c'est important comme ni ko waxee rek